mbokk Sénégal tey jii taxaw nañu bokk ci xeex bi nga xam ne nekk na xeex bu àdduna bi yëpp di def contre jàngoro joo xam ne ñu ngi ko tuddee Covid 19 tey war na àdduna yëpp. coronavirus musiba balaa wàccu ñun sunu réew. xam ko ñan war a déglu ndax recensement budget bi réew gouvernement moo ko yor mais ñoom yoruñu ko ñooñu wax ji ku leen topp dañuy suux suuxaale la moo tax dama jël son bi euh, way ko bind ko wax ko naa wax askan wi pour Sénégal tam bàyyi xel ci euh, li nitu diine yi wax li nitu aada yi wax li président Macky Sall wax ak li ministre bi wax ak li kër docteur wax moo tax may way euh, coronavirus bi feebar yabaate mooy yow kenn falu la juuxu nga réew mi kenn dégluwu la yoroo santé yoroo wér-gu-yaram benn doomu aadama sa kër tax mënoo ko res nga yor sa di wax waxi euh, dof dof lu xamante yoo xam ne affaire compagnie bi ak affaire réewante dafa am fu mu yem mi ngi mel ne tey jàkka rek wala jumaa ngay dugg comédien bi na yem ci ginaaw jumaa ja mais lu dugg bu fa ni julé ngay ngay def affaire comédien comprendre lol na ci ministre bi jël ay ay moy ministre nga xamné moy euh, sisis na ci jël ay mato ay bo a baax ku fi wax lo xamné du yoon na tek ci yoon ndax réew tam réewum droit la joxu nuko bayu kenn dafa am ko nu watel senegal yi ne ki mo no doy ñu jox ko koko saytu and ci wa aduna bepp muy gouvernement nanan def nangam nako nit ñi deglu mais kenn ku nekk naan xar mi bëy wi ginaar gi boo reetaanee boo cuqutaanee yooyu affaire yi ñàkk fayda la yoo xam ne artistes yi surtout ñi def wàllu comédien war nañ ci bàyyi xel bu baax xam ne lii du bis boobu loo xam ne bu dalee sa yaay doo ci mën dara su dalee sa pap doo ci mën dara dalee sa sëriñ doo ci mën dara kon war nga ci bàyyi xel bu baax ñi doon matu am doom ndax ñoom dañu tiit Africa beneen bi tam opposition bi ak ñëpp ay politique ak caaxaan ak xeex ak bi amatu sens li am sens moo ñu xeex coronavirus bi ba mu jóge ci àdduna bi wala mu jóge suñu réew loolu mooy xeex bu mag bi maa ngi ci woote sëriñ si yeeg ustaas yeeg imaam yeeg ak képp kuy nit ca Sénégal ñor la nga daan xeexal Sénégal démb tey ji la xeex bi yoo commencé nag loolu na ci ñëpp bàyyi xel na tey la xeex bi doo commencé ndax euh, xaalis bi am ci àdduna bi wala am ci réew bi ku amul wér-gu-yaram mënoo ko taal siit li mu rafet rafet rafet bu nu indilee siit bi nga war a sëy ak moom ah wala bànneex bu fekkee sa wér-gu-yaram matiwu ko doo sëy doo du am jàmm doo am salaam kon wér-gu-yaram mooy pexe na jiitu ca ñu jox ko gën ak respect bu baax a baax jàppale gouvernement bi ci lim ne su luy jaaxee nag kon jël ca sa politique ak la nga nekkoon.